jërëjëf enquête la ñuy doore mi xëy kii le kàddu moo di nguurug Sénégal taxaw na ci maanaam euh, pare ci mbiri Yafu Selim lii la ko euh, waxee li tax yéenekaay bi ci ni mu ko leerale mooy am na

benn réunion de crise boo xam ne war nañu ko amal le quotidien moom li mu gis moo di nguur euh, état bu Sénégal kon ëppal na ci yëf yi maanaam franchir na le Rubicon ndax euh, am na benn arrêté bu mu bind jëm ci ne bu ñu jàngaleete ci école Yafu Silim yi ndax loolu yoon dogal donc Yafu Silim existé tul ci réewum Sénégal ministre intérieur dem na bay sàkku ci ñi nga xamante ji ñoom ñooy wayjuru élèves yi ñu bañ a yóbbooti seen i doom ca Yafu Silim bu ñu sukkandikoo école yi ngir bañ ku fay dugg wala kon ku fay génn ngir rek wane ne kon dogal bi dañu koy appliquer ay gémi ñoom ñoo fees dell ci école yu yafu selim yi les les éco am ci beneen jàngat mu di Macky Sall mi nga xamante ne def na arrêté yafu selim fii ci diwaanu Sénégal Macky dafa kon far kii Erdogan ba noppi faat di kii Gulen ni ko waxee mooy euh, ñële la àndal kon bàyyi ñeneen loolu moo nekk ci titre bi ci xët bu njëkk le témoigné moom it dellu siwaat ci waaye moom ministre intérieur la gis ne kon moom moo sele sor bu yafu sili maanaam ci gàttal li ñu doon lam-lammee dina am ak du am ak yooyu yëpp baat bu mujj bi kon ministère intérieur wax na ko wane na ko beneen yéene kaay bu xëy ci leneen moo di l'observateur moom Habib Sy la xëy wane te Habib mi nga xamante ne ji moo nekkoon directeur de cabinet bu Abdoulaye Wade Habib Sy mi jiite parti bii di parti Espoir et Modernité waxtaan na ak waa l'Observateur lu bëri ci tolluwaayu politique bi waxtaan na ci mbiri madame Wade waxtaan na ci mbiri Macky Sall lépp ba ci Karim Wade sax mi ngi ci yéenekaay bi beneen politicien bu jege woon Wade loolu te xëy ci beneen yéenekaay moo di Pape Samba Mboup mi ngi ci Walfadjri journaliste Walfadjri ñoo ko xëy financement CAP 21 yooyu yëpp moom Pape Samba Mboup wax na ci wax na sax ba ci mbiri ki nga xam ne moo di maître Madické Niang ak taxawaay bi mu am eh, ci nangu PDS ci loxo yi ñu ko ñor loolu lépp eh, leeral na ko l'évidence di que ñun ci beneen mbir mu di ñu jege woon loolu Abdoulaye Wade ñu tudde leen ay waddiste eh, éternel ñoom ñu ci bëri weddi nañu wadd bokk na ci Souleymane Ndéné Ndiaye bokk na ci Farba Senghor bokk na ci Modou Diagne Fada bokk na ci kii di Aliou Sow ak Samuel Sarr beneen Sarr moo nekk ci la Soleil moom Alioune Sarr muy waxtaan nee na ni ko Inde defee Sénégal war na koo a defee noonu li tax leeral na ko ci yéen a kaay national bi di Le Soleil Sud Quotidien di kay ñun ci président Macky Sall ak lu mu jëloon ne engagement lu mu fi diggee woon lu mu ne woon dana ko def bokk na ci ay collège bokk na ci autosuffisance en bokk na ci budget sport bi mu ne woon danañ ko def 1 pour cent loolee lépp yéen a kaay bi gis ne ba di commencé la ko diggee woon léegi tey 2017 jeex ci ba léegi defagu ci la wax l'observateur. lu mu wax ci li am Saint-Louis. pilote yi wala. ah déedéet ci suufa suuf. Mamadou Ndiaye astafurla Mamadou Diaw. jaaw waaw mu ne. dafa dem ci patron sàcc fa 9 millions ñëw ñu sàccaat ko. waaw <laughs> merci Ndiaye loolooy xalaas ñu ngi lay gërëm bu baax jar na lii mu ngi ci l'observateur bu tey bi ah yooyu yëpp sa yoon nekkul.